Moi, j'ai toujours dit et défendu. Ils ont le cas de, de, de On a laissé faire nous, parce qu'à un certain moment, dañoo jóge si alternance bees bi Macky Sall gëmloo ñu ne ñii ne ay demande sociale la ñu ñëw jiite keneen ñii ñëw jiite ñëpp ñëw ñu ñëw toog seetaan or et moi ça je l'ai dit au président de la République la le fait que ñu juge Karim Wade au niveau de la cour de répression de euh, de la de CREI c'est-à-dire que une illégalité c'est une atteinte grave aux droits de l'homme moo tax j'ai déjà dit bés bu nguur gi changé moi je suis pas pour que ñu amnistie euh, Karim Wade malheureusement sax d'autres en ont parlé mais maîtriser woon li ma doon wax je suis pour que toutes les décisions yu ñu rendre au niveau de la CREI toutes ces décisions là soient annulées parce que mënuñu nekk dans le Sénégal du vingt unième siècle ñuy rendre ay décisions au nom d'une au niveau d'une cour boo xam ne ne la euh, Georges Dédé nga la c'est de ce renversement de la charge de la preuve ce n'est pas normal dans une démocratie donc je suis pour que toutes les décisions rendues par la CREI soient annulées purement et simplement annulées mais il y a autre chose qui s'est passé mais mais bu ñu euh, renversement de xaw ma euh, mais pourquoi yéen ngeen bëgg ko yemal rek ci CREI bi te am na yeneen i euh, juridiction yi nga xamante ne bu ñu lay àcc ci yenn yow yaay indi firnde yi donte sax yow lañ topp. non ça ce qui s'est passé. par exemple journaliste bu ñu ko yóbboo diffamation moom mooy indi preuve am te kenn waxu ci dara. non non non c'est différent c'est-à-dire que diffamation mooy nga ñëw ne diw. jort yow yaa def lii yow mi ne yaa def lii waaje yow yaa ñëw ne kii kan moo ko def parce que fii moom mooy euh, tegukaayam je suis d'ailleurs d'accord gis nga li ngeen dox ay dépénalisation délit de presse yëpp d'accord c'est-à-dire que moi là où je veux rek ñu insister sur la presse sur les la question des libertés il y a deux choses qu'il faut réformer aide à la presse tuddul aide subvention la il faut ñu bàyyi mel ne dañuy jox ndimbal journalistes yi la deuxième chose il faut que ñuy juger les journalistes sur la base de la bonne foi c'est-à-dire simplement que Georges Déthié bu bindee benn affaire ci benn waay

c'est là les offenses la ñooy mujj ñëw xëy benn jour mu déversé wu dans les rues ñu am des mouvements citoyens yoo hmm. xamante ne du am leader. Moussa Tine jërëjëf.